mbir moom fi ne laa commencé métti demaguñu fenn bu gën a métti de maa daal fekkee nii la moom ñu ne ñu teel bind lettre de démissionné waaw daal di démissionné xoolal doomu xarañ kii du jigéen ko julaay bu sax bi léem laa bëgg a woor ci fii rek xaaral ma dem. sa kër nijaay saa nijaay saa nijaay kër gi màgg na de ak garab gi màgg kër gi màgg mais du fii nag Hey!

ba tabaski laay a ana xar yak bëy ya fa ne ah eh. xanaa daan daanoo sàmm lakk nga lan lakk lakk nga bu lakkee ngeen jël faxas ta war na la a bu lakkee ba ñor lu so boo jël faxas lekk mais bàcc yow bàcc yow bàcc ñeent sax yow bàcc ah. yow la may jiji nii man la may fiise ma nekk réewum daa daa am ay ndawal ay saucisson ndambe na dëkk ba amul dara cere cere mba xam saal jeex na amul neneen la leen méga ñi mais bañ toog ba ba bañ fa bañ am na ma ni yaay bañ la laal bañ la am na ma ni yaay xam. gis nga seen yaay bañ yow léegi ñàkk a jege xam nga dugg xam nga sama daal la sama leen nag de damay def formation. titre par mu góor ngay dee carte carte. waaw bañ yow kosoo na lee xëy yow bañ yow léegi. waaw bañ yow mel. kosaay bës dee. kon ak kosoo na lee xew. waaw yow laay waxam. bañ yow bañ yow daal xam nga leen nag. yow laay ma ñëw dama soxla ne. waaye pusa bu ne. tàppatu ma ne da nga yaakaar ne ma tàpp ma dëgg ma loolu laa tàpp ni. waaw yow yow bàjjee wu nga xam ne nga naan man maa ne wala xaaral maa ci yow. lu ma ba ci alaaji doon ma ca borom janaaw yi laa wax yow mën a dégg.